jërë ngeen jëf mbokki bawal Média jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu di ñu topp te di ñu teewloo fépp ci biir euh, dëkk bi waaye tamit ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara yéen tamit internet yi nga xamante ni yéen ñuy topp di ñu bàyyi xel fépp fu ngeen mën a nekk rek. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax tey am mbégte ak contentement di àndaat ak yéen ci seen jotaay bi nga xamante ni moo di penc mi. ñuy waxtaane li nga xamante ni moom moo nekk ci penc mi tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaane ak yéen benn ponk bu am solo muy loo xamante ni nii yaakaar naa ni yéen ñëpp ràññee ngeen ko ci biir réew mi ci biir dëkk bi ak ci àdduna sépp te muy violence violence nag doon loo xamante ni nii lu ñu ràññee la lu ñu seetlu la mu mel ne day màgg di màgg màgg gu yéeme bis bu yàlla sàkk ñu ciy gis ak di ci dégg loo xamante ne nii xëy na ku yeewoon suñuy maam wax leen ko wax dëgg yàlla dana leen jaaxal lan moo waral violence bi bari lan moo waral violence bi jéggi dayow fii ñu toll nii di ay laaj yoo xam ne yu mat a samp la di loo xam ne it lu mat a waxtaane la ah violence nag boo ko déggee moom génnut fitna fitna képp la di fitna joo xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku guddi ak bëccëg suba ak ngoon rawatina nag di ko seetloo ci ñoo xamante ne nii xëy na foogee wuñ leen ko woon mbaa boog yaakaar yi wuñu ko woon ci ñoom kon loolu li muy tegtale rek mooy ni kon am na lu ci rax am na lu ci bees loo xam ne nii wax dëgg yàlla lu mat a def taxaw seetlu la violence nag ñaar la muy bi ñuy wax violence verbale ak violence physique verbal nak boo ko moy mooy violence bi nga xamné ne day juggé ci cadre ta muy lu yéeme yéeme yéeme di lu doy waar ndax wax dafa doon lu yéeme nit dina yëkëti cadre tek ko ci moromum nitam muy cadre go xamante ni bo xolé ba ci biir yëkëti sa xeyna ngannaay door ko ko mu yam fa da koy dal di sedd ndax day kàddu goo xam ne mën naa rey nit ci xolam kon loolu lu mat a mat a mat a bàyyi xel la violence verbale boobu nag di lu bari lool ci réew mi bés bu yàlla sàkk ñuy dégg ay kàddu yu ñaaw di jóge ci ay nit jëm ci ay nit te li ci gën a doy waar nag mooy day jóge ci ay nit di jëm ci ñoo xam ne ñu leen jege lool la moo xam muy ci wàllu mbokk moo xam muy ci wàllu xarit kon muy loo xamante ni daal lu kenn kenn kenn mënta comprendre la te muy loo xam ne kenn mënu laa wax ne la fii la jóge ba egg si fii tey kon violence verbale boobu di lu doy waar ah violence physique nag boo ko déggee mooy violence boo xam ne doonatul ay kàddu waaye ci ay jëf la te loolu nag moom doon loo xam ne tey dafa mel ni doonatul sa xibaar diw rey na diw diw gaañ na diw loolu moom dafa doon loo xam ne tey dem nañoo dem a dem a dem ba nga xam ne boo xëyee dégg ko sax lu la jaaxal ñu di ko seetlu nag fu baree baree bari ci diggante sax ay waajur ak ay doom ci diggante jëkkër ak jabar ci diggante ñoo xamante ne ni kenn mënutoon a xalaat ay at ci ginnaaw ne ak ñaaw ñaawteef mën naa dox ci seen diggante kon loolu bu ñu demee ba di ko gis ci jamono ji jot na ñu seetaat suñu bopp mbokk yi jot nañu xoolaat bu baax a baax a baax a baax fi nga xamante ne nii fa lañu teg suñu tànk xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom la war a def tey jii Sénégal moo toll foo xamante ne nii alal euh, nguur daraja ak ya aju fëkk na bëti nit ñi waral kenn seetatut lenn kenn xoolatut li ko war li nga xamante ne nii moom la war a moytu. mu melni dañoo fàtte dëgg-dëgg li ñu doon fàtte fi ñu bokk waaye fàtte tamit nag li nga xam ne moo ñu yëkkati te loolu boo xoolee loolu rek mooy waral ñuy faral di def yenn yi ñaawteef yi te ginnaaw bu ñu ko defee ba noppi nag dañuy ëlbatiku di réccu ëlbatiku it di amuk jaaxle ci suñu bopp kon baax na lool ñuy xoolaat bu baax a baax a baax li ñuy def ne xoolaat bu baax a baax a baax li nga xamante ne nii moom la ñuy wax ñaari xeeti violence yooyu nag mbokk yi mën naa ne dañuy lëkkaloo dañuy ànd